Barca dugal ganda, Barca ganda. hi guys Big Allen. Just for getting this jam, ngi si jàmm must Barca Real Come on, I'm gonna koy vlog my ngi doog yeewu nii Come on, in Barca. la ñuy Barça day gagné tey la bi te force Barça day gagné. foog ma def ko vlog dem ndékki su ma demee ndékki après ma dem go to work right now because ab balaa match bi nga pause ñëw seetaan sa match Barça jël ndam li ñu ñibbi seetaan leen vlog bi ngeen xool ñun na lay seetaan match bi fii yaa ma gën a xam amee leen bi ngeen partagé bu leen fàtte yéen zéro bet sama promo code 21 avril saa yu nga am bonus 1 million li ngeen naa la ñuy topp onze heures moo jot wàcc jot na instant yi seize heures maa ngi di ñibbi ma naan seize heures sax deux heures dem seetaan match Barça Real Madrid Barça day gagné foos ni ma amee confiance Rafinha tey Real Madrid yaakaar ne Real dina gagné match bi tey ah. sa wet laay toog su Real dugalee sa kaw lay gagné de ku koy gagné Ba mën a gagné Saliou yaa ngi wax rek ba am Billy Ngaaw am Mbappé match bi moo koy seetaan sama Saliou man Rafinha la am match bi saya ingin seetaan sama tànk Rafinha ak kii Lamine Yamal kii mi ngi yaa ngi Saya de Saliou Yamal yamul mas bàyyi ni sama tànk si kaw télé bi laa koy aj baax Saya que des minutes Real ne de ci tudd Arnaud da ngay ñàkk de Kaaw Kaaw Kaaw kan wala 3 kan saya. 500 dollars boo jëlee Kaaw kan ak kan teg 500 dollars pagal 500 dollars léegi. njëkk a dugal njëkk a dugal a di yoon. télé bi télé bi ñëw ba di jaay pare. métti na métti na kay. ñu kaw tuus tuus tuus. Ah, saay. wala fexe Arnaud. ba Barça du gagné Real. lekk sa xaalis. bi ni ma ko gisee nii nii. Barça day day gagné de. kenn xamul nag solution am na dañoo mujj connecté téléphone bi. parce que yaa téléphone bi. pour mën seetaan match bi. non man de la eh, <laughs> yi ci la Real dugalee naka te Orzo la Arnaud commencé dellu nag neen day zibilé te xamul sa li ko fi fekk seetaan leen. <laughs> ah benn ah, affaire. you gotta fucking man. Ala Madrid. You got a fucking man. Mbappé libéré rek, libéré rek. Mbappé libéré rek. Orzo. Orzo. Amul dara. Barke Yàlla amul dara. Xool action. Xool action. Lan moo Orzo? Lan moo Orzo? Waay ki la lay Orzo la. Waaw Orzo. Waaw déglu arbitre, déglu arbitre. Waaw Orzo la. Var var var var. Xool action. Xool action. ñëw si télé bi ñëw si bi. ku suñu seetaan bi. waaw loolu lay def ñu bi ñëw na ñoo ngi nii di seetaan léegi zoom ñu xool 0-0 ba léegi ah. Barça day gagné Barça day gagné li ma liis xaar nii dañoo taare lu bëri te Barça day gagné ñu ne woon seen.

parce que ñun suñ support supporter Barça yi ñun. li Barça di football bi léegi dañuy xaar deuxième mi-temps yi ñëw Barça gagné ah ah dee na. Yamal barki Serigne Touba Mbacké deuxième mi-temps bi mu dugal na gagné leen amul yoon barki Serigne Touba Mbacké Barça dugal na Barça dugal na. orto de. orto nga naan orto. Lewandowski. Barça yee. orso biri biri baa dee. biri bi fu mu fu mu yuuxu booy fu mu yuuxu. bu kenn soo diggee. Barça. Como you. parce que yàlla damay gagné damay gagné damay gagné loolu yàlla moo ko def damay gagné damay gagné man ñii bëgg naa leen deux deux Arnaud ça va ça va Ardo ça va damay gagné damay gagné football tekki na fekk la xola fekk la sa biir dëkk dala def lii fekk la ba sa biir dëkk dala def lii dala foowee 2-0 Ardo yee <laughs> waay sama xol bi sedd na Real dafa tàmm saa bu match amee ñu mëne ko deux mu dem égaliser tey bu dee Real mooy yàlla ba eh Real musu remonté Barça. musu ko remonté ne ah. a naa musu ko a daa mel ni yàgg na ko remonté ne ah. musu ko remonté. woo nii. wala la ñu demal ma xam nga xam nga xam nga barki Serigne Touba Mbacke sama xol bi dafa seet. ma koy jaaxal la. ubbi ma yu ubbi ma sama xol bi dafa seet. xoolal lii rek xoolal lii rek. xool xool duru ba. xool lii. xool bii xool bii mais Lamine Yamal Lamine Yamal Lamine Yamal sama gars yi Lamine Yamal mën na paas mën na football Barça bi ma gis Barça bi ma gis. Barça bi ma gis. Barça bi ma gis. barki yalla Barça bi ma gis. problème amna, na. problème am na. bii laa bëgg ngir yàlla ak yonent bi. Barça quatrième bii laa bëgg. Rafinha quatrième bii laa Barça. Rafinha. Barça quatrième Real. Barça quatrième Real. aywa Barça quatrième Real. Barça quatrième Real. vocation vocation. vocation dama almay Real ngir yàlla almay Real. almay Real na am na. waaw waaw waaw waaw match bi jeex na xol yi seen na Saliou ngir yàlla alma may may may Real bi jàpp si Saliou ngir yàlla maa ngi photo photo sama waay nga de sama waay match bi jeex na jàpp si alma jàpp si alma waay sama xay ab may instant yi mu bañ quoi may laa ko ab instant yi mu bañ instant yi sama waay la instant parce que may supporter Real la quoi match bi jeex na xam nga ñu def débriefing Lamine Yamal barki yàlla Lamine Yamal yàlla na la yàlla fay sa xol Lamine Yamal Lamine Yamal mën nga football mën nga pass Lewandowski Mbappé dégg naa waa fan sa yi naan xaw ma dañ lay jaay ak yooyu noonu mais garaaw àdduna noonu la tey da ngay dóor suba ñu dóor la mais tey Barça moo casse Real Real football fi dara match yëpp hors zone sama xol dafa sedd kontaan naa jërëjëf Barça mais noo leen gisee match bi yéen nan ngeen ngeen gisee match bi Barça bii ma gis oh! Barça bii ma gis nii